Zatun wa ila manam mo nufirah dati rasululil noozah hazee wa ila manam Pape Malick Mbaye di 100 euh, pour cent Alhaaji Pape Malick Mbaye ginnaaw bi nga xamante ne nag liggéey boo xam ne bu yaatoo yaatu la ci diirum at ñu doon rendre compte nag soppe yi taxoon ñu daal di amal guddi bu mag a mag léegi gàmm soppe yi Alhaaji Pape Malick Mbaye jaat te tabaarakallaahu loolee sabab na nag liñ ci paree gis nañ ci ay réussite allah gis nañ ci lu am solo gis nañ ci lu doy waar ndax dañu ci nag ci nag ak nga xamante ni mooy Serigne Talla Gadiaga di président d'honneur bu 100 pour 100 El Hadj Pape Malick Mbaye waaye itam ak euh, suñu xarit di El Hadj Ousmane Dieye di président bu 100 pour 100 El Hadj Pape Malick Mbaye waaye tamit ak seen jigéen soxna Absat macha allah waaye itam ku ni Pape Malick Mbaye daal di ni Pape Makhtar Ndiaye di kàddu daan teem ah moo ko teewal fii ci émission bi fa tabaarakallah moom itam dina àddu jëmale ci loolu nga xamante ni. mooy plateau bu spécial bi ñu leen amal ñu ngi ci ànd nag ak euh, télé bu mag bi ah di leen nuyu leen bokk internautes yi nga xam ne yéen a suivre Pape Malick TV à travers internet bi di leen jaajëfal bu baax a baax comme mag ñi nag ñooy faral di wax naan ku guddee war na guddal loolooy tax dañuy jox suñu xarit suñu soppe tabarakallahu di nit bu baax macha allah di sëriñ Pape Matar Ndiaye mu daal di euh, ubbi jotaay bi léegi ko ndax mag ñi ñooy wax ni. saxaarkat di liggéey gaar day konne kon Pape Matar yaa ngi noonu soppe yaa ngi noonu bokk internet yu Pape Malick TV yi ñu ngi noonu di la bàyyi xel activité ilahiya ilahiya ilahi ilahi tawbatan qablal إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي سيدي الحاجي مالك بين يومين إلهي يا إلهي يا إلهي ولا إلهي خبر ما مولانا إلهي إلا حيا إلا حيا إلا حيا توبة قبل الهدم بين يدي رقى فوق الغرات إلى السماء موطنا وكان إلا حيا إلا حيا إلهي توبة قبل الهدم بين يمين رقى فوق البراق إلى السماء موضنا ودعنا الروح مع موضنا إلهيا إلهيا إلهيا والله

البراق إلى السماء ونحن نلقوه إذ أجسن مع يا إلهية أصف سحرا إلهية إلهية توبة سيد الهادي مكبلا علينا الحمد حمدا حرتينا ووالله ما ضرب إلهيا إلهيا إلهيا تومة سيد الهادي مالك محمد إلهينا فما تدري نجاح وأسلم

إلهي يا إلهي قبل الهادي مالك والملك وأن كنت في خلق القلب بين السماوات مع مولانا إلهي يا إلهي يا إلهي توبة قبل الهدم محمد سلام ردع في ذلك ألف ألف مضبر غاية إلهية إلهية إلهية إلهية سيد الحادي مالك بين يربع وإننا النظم يكفي ذات لا مدبرم كمدن إلهيا إلهيا إلهيا حب الله ما شاء الله dégg loolu nag ak nga xam ni Alaaji Pape Makhtar Ndiaye tabarakallah moo doon àddu loolu yaakaar naa bokk concert la seen xol seen na seen xol fex na seen ngir sant Rasulullah ñundu maam Cheikh Seydi Hadji Malick Sy Dabakh radiyallahu taala anhu tabarakallah Alaaji Pape Makhtar am na mbégte kontaan nañ lool waaye nag dina ñaanal yàlla yàlla wéral baat bi

tàyyiwul sonnul ngir liggéeyal xadara bi liggéeyal kër maam Cheikh Sidi Hadj Malick waaye nag yàlla tënk ko ci li nga xamante ni mooy euh, euh, cent pour cent El Hadj Pape Malick Mbaye àndandoo ak mboolem xale yi nga xam ne moo leen ko waafee ah tabaarakallahu ngir liggéeyal xadara maam Cheikh Sidi Hadj Malick si olof yeey wax ni nit ki loo ko xam-xam mu gën a xam boppam dañ koy bàyyi mu présenté wu alaaji maa ngi laa ziar. ñu ngi bi delloo ziar bu bi euh, mboolem téléspectateur yëpp. dilen ziyara dilen di leen jox seen wàcc waaye di tamit ci gam ak nga xam ne ci leen jóge wante jeexagul tabarakallah mu nekk guddi gu am solo ci l'islam waye rawante ci njaboot Seydi haji malik bu ñu déggee sank rew di haji pa Makhtar nga xamni la fi Seydi Xaaji Malick bàyyi woon jógu fi ndax mo ne won la khayra ila fi al madaaxi maadixin bil khalqi wal khuluq al-karim muraddati ta ci la ñu nekk imma bi taswidul wufuudi bi khayrihi إما bi ikraami duyufin wu كان mu أوي kenn mënul aw yiw wu gën ci gàmm ba dul tàgg ngay teral délégation yi nga xam ne ñu ngi ñëw di leen teeru ci aw yiw ak teral leen ci wàllu bernde te mooy dal yi nga xam ne ñu ngi ñëw si tabarakallahu sidi xaaji malik noonu lañu jàngale naka la ñuy ñu nekk ci ci noonu nga xam ni njabootam yépp ci loolu la yar ci la teete wax dëgg yàlla ñun 100% xaaj Pape Malick Mbaye ñu nekk ci def yitte ci ndégalu Pape Malick loolu moo waral mouvement bi doon def programme tabaarakallaahu buñ ne tey la noppalu nga xam ni wax expliqué nañ ko ba taay mooy que Pape Malick ay soppeem dañoo xaw a bëri macha allah te fu nekk la ñu nekk ci réew mi te gise yombul jot amul ndax ay rek ay ndaw rek a ci nekk te Serigne Sall doon faral di wax ni ndaw warul am jot ndax ndaw bu amee jot su màggatee du am jot te mag mu amul jot amul barke loolu moo waral buñ ne tey la noppali suba la gàmmu muy dajale sopp yépp daal la dajale biir këram di saafante ak ñoom sopp yi aussi di gisante di xamante ñu koy def ba yàlla def muy yokkute ñu génne ko euh, def ci lu spécial nag leen wax dëgg yàlla. jërëjëf euh, Seydal Hadji Talla Gadiaga la ñu àndaloon noonu kàddu yi tey na tedd na am na solo waaye laataa may dem ci président ah, tabaarkallaahu damay ñëw ci présidente gu yanj bi. ah tabaarkallaahu nga xam ne nag euh, xeebul xeebul bés bi tabaarkallaahu def dañ koy jox rek euh, euh, comme ni ma wax ci Serigne tala mu nuyo ak mbokki internet yi waye tam daal dañuy wax mom moy kan soxna si ñu ngi la nuyu. waaw salam salaamaaleykum ma ngi nuyu ñep ziar ñep euh, di nuyu bu baax baax ñep ñuy seetaan Pape Malick mbay TV ma ngi tuddu Soxna Absa ndjay di présidente nationale 100 pour 100 Pape Malick Mbaye waaw comme ni nga ko waxe rek may kontaan bu baax a baax baax ci bëss bi ndax yalla daf ñu bolé ak Pape Malick mbay

jërëjëf suñu jigéen bu baax boobu boobule soxna sax yaakaar naa mbooleem kuy seetaan rek xam nga mooy kan ndax eh, def na présentation bu mucc ayib waaye sama xarit sama soppe sama jumeau eh, di Haaj Ousmane Dieye tabaarakallaahu la ñuy jox eh, micro bi moom itam mu nuyoo ak mbooleem ku nuy bàyyi xel ci Pape Malick Mbaye TV nuyu leen saafonte ak yéen waaye itam wax ñu moom mooy kan ak lan lay représenté ci li nga xamante ni mooy mouvement bu mag boobu di 100 pour cent El Hadj Pape Malick Mbaye alaaji ngi lay ziar. waaw mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokki àdduna nuyu mbokki xadar malike yëpp ah, tabaarakallahu di ndokkeel ñëpp ci gàmmu gi nga xam ni mooy gàmmu 2019 nuyu bu baax tabaarakallahu Haji Pam Malick mbay mi nga xam ni ah tabaarakallahu mooy suñu soppee di suñu kilifa ah, di ko bu ko defee rek ñu nuyu bu baax it Haji Taala Gajege bii nga xam ni moo wàccee kàddu gi léegi nga xam ni mboolem 100 pour cent mooy seen kilifa tabaarakallaahu moom la jiital ah lu mu wax moom la wax lu mu waxul waxuñu ko ah nuyu it madame la présidente di ko ziyaara bu baax a baax nuyu xaaji Pape Samb tabaarakallaahu comme ni nga ko waxee rek ah, gàmm buñ ko waxee wax ah, yonent bi sallallahu alayhi wa bu ñu waxee gàmm ah xel yëpp it dina dem ci Seydil Xaaji Malick ndax moom moo sos gàmm tabaarakallaahu waaye it ah, kenn du Serigne Babacar Sy suñu soppee boobu nga xam ni ah xale yi ko wax mu la sëñ Babacar laa sopp ah ci barkeem rek lañuy ñuy taxawalee gàmm googu nga xam ni soppee Pape Malick yi ñu koy taxawal di ko def jouru noppalu comme ni ko Xays Taala waxee di góorgóorlu it eh, ci xadara bi ngir képp koo xam ne ndaw nga di soppe Pape boo ñëwee ci bis boobu am satisfaction ci eh, sa soppe bi nga xam ni yaa ngi koy dégg mosoo ko gis am na ñoo xam ni gàmm googu rek ci la ñuy gisee Pape bu jàllee dootuñ ko gis loolu moo waral ñu koy organiser ak sagal ah xadara bi tabarakallahu loolu rek moo ko waral xaji pap ah, foofu la ñuy yemalee kàddu yi tabarakallahu wasalaamualeykum wa rahmatullah jërëjëf euh, xaaji Ousmane Dieye sama jimo tabarakallah ñu ngi koy béggewaat di ko ziar euh, tabarakallah nit ku baax nit ku yiw nit ku tedd waaye nag ba tey ñu ngi fi ak euh, Serigne Talla Gadeega tabarakallahu Serigne Talla laaj bi jëm ci yow mooy gis nañ ni organisation bi macha allah jàll na amna solo solo la tay ñu ci organisation bi euh, ñi ko organiser muy mouvement 100 pour cent El bay pourquoi mouvement 100 pour cent El bay waaw euh mouvement 100 pour cent El bay euh mouvement la rek comme mouvement yépp ndax mouvement la bo xamni ni mi ngi jóge ci ci mën ni ci làmmiñ Serigne Abdou Aziz Al Amin ndax euh yalla na avant mu fi jëg accordé nako ndax dem nañ ba ci mom mu rafetlu ko booluñu ak doom bi ñu wax Sidi Ahmed kon mën na ni daayira la rek daayira bu nekk ni day am tur muy daayira boo xam ne aussi li seen yitte rek li seen objectif mooy fexe ba xadara Sidi Xaaji Malick jëm ca kanam waaw amuñu ci xaaj amuñu ci seen li suñu yéen rek mooy liggéeyal xadara Sidi Xaaji Malick yàlla dogal ñu ko jaar ak suñu soppe xaaji Paa Malick Mbaye waaw suñu organisation aussi yëmul rek ci gàmma soppe yi lépp luy am ci xadara Sidi Xaaji Malick loxol 100 bi mi ngi ci biir danañ ci dox danañ ci wax danañ ci def lu ñu man ndax loolu la ñu Paa Malick sant te ñu fa tabarakallah jërëjëf euh, Serigne Talla euh, wax nga lu amam solo euh, liggéey bi yemul ci la comme accès ko ci Serigne Pape Malick waaye mbooleem lu xadara bi comme am rek di ngeen ci dugal seen loxo ba mu feeñ ci waaye itam ku wax organisation wax difficulté ku wax mouvement wax difficulté nemme nemmeeku wax nemmeeku nañ ni dañ koy nemmeeku ci organisation yu bëri dañ koy nemmeeku aussi ci ONG ak lépp loo xam ni regroupement de personne la rek est-ce que yooyu difficulté am na ci. waaw wax dëgg yàlla bu baax a baax sax comme ni ko amee ni nga ko ni nga ko waxee difficulté mënut a ñàkk parce que nit moom lépp lu muy def rek faw mu am ci ay gàllankoor rawatina nag lu baax ndax lu baax moom moo gën a jafe. ndax euh, loolu yàlla dogal ndax yàlla mooy dogale noonu yàlla day Serigne Cheikh day faral wax ne yàlla mënul xarit maanaam day nga xam ne moo jël yoonu baax foofu mooy gën a bëri ay fakatal mais nag tabaarakallaahu tamit njàlbeen gi rek mooy métti mais bu lépp day rafet tabaarakallaahu yàlla ak barke mag ñi euh, jàpp na ci ba wax dëgg yàlla métti woon na mais nag euh, yàlla defoon ci réussite wax dëgg yàlla ndax euh, bi ñuy door métti woon na trop ndax wax naa la sànq ne la bi ñuy door biir néeg lañ commencé woon di nab na bi yàlla dogal ñu génn ci bitti dem ba xajatuñ fa ñu mujj génn ci bayaal bi te ku ñëw ci gàmmo gi xam nga ni budget ba la fa nekk caaxaan taxawlu ko wante ak suñu relation président ak bi nga xam ne lépp ñoom la wax dëgg yàlla seen yitte tax ba dara dara dara jafewul xëy na ñu ngi ciy tudd taala sax waaye ñoom ñoo ñuy wax rek ñuy def te wax dëgg yàlla boole nañ ñoog ñoo xam ne aussi tamit bu ñu demee ci ñoom rek lu ñu bëgg ñu def ko wax dëgg yàlla moo tax amuñu benn jafe-jafe euh, donte metti waroon na ndax fi ñu ko def c'est la première fois ñu génne ko fi mu nekk bayaal boo xam ni euh, nekkul n'importe quel bayaal bayaal bu historique la ci Tivaouane am na ay xëy na am na ñu ko ñu fi daan dal par gàmmo ñu ñu ñëw c'est la première fois ñu bëgg fi imposer gàmmo tant fi lu toll noonu donc mënul woon yomb amoon ay difficulté au ba préfet sax woowoon nañu wax nañu teey ndax xëy na am nañu fi war a dal ci gàmmu gi wala genre yu mel noonu mais lépp rek ci barke mag ñeek wax dëgg yàlla démarche yi nga xam ni ginnaaw yàlla aussi Cheikh Tidiane Mbaye def nañ ay démarche ak taxawaay ba wax dëgg yàlla lépp mujjee rafet ñu ngi sant préfet bi ak militaire yi nga xam ne ñoo fi doon dal te mujj ñu bàyyee ni ko ci xol bu tàlli wax dëgg yàlla ak waa Tivaouane yëpp ñoom xalifa ñang ak ñi nga xam ni terrain bi euh, seen loxo la nekk di waa waa kër Serigne Abdou Hassane Amine wax dëgg yàlla jàpp ci wax dëgg yàlla aussi tamit Tivaouane kenn seetaanuñu ndax euh, mouvement bi ñëpp ci jàpp parce que ñëpp xam nañ ni mouvement 100% Pape Malick Mbaye liggéeyal xalifa Seydil Seydil Hadji Malick moo ko tax a jóg waaw xam nañ ko ndax ñun ñëpp gis nañ li ñu def ci tarixa bi ak kër Seydil Hadji Malick moo tax lu ñu yëkkati ñëpp teg seen loxo mu ngi noonu euh, Hadj Talla Gadiaga yaa ni yàlla barkeel ci barki barke Seydina Mohamed xam naa balaa may dem ci président euh, damay ñëw ci présidente macha allah ak sañse bi nga xam ni tabarakallah rafet na lool du ma ko tàyyi di wax soxna si yaay présidente 100 euh, pour cent El Hadj Pape Malick jiite ay jigéen est-ce que yomb na. loolu dinaa si jiite ay jigéen yomb na yomb mais dama dégg ma kii di wax naan euh, mbir boo si amee ay mag am ci ay rak soo sonnee yaa sonn sa bopp te mouvement bi yàlla dafa def ma am ci ay mag am ci ay rak. tey jii boo waree xalaat say mag xalaatal la doo juum nga war a jëf wax say rak ñu jëfal la yaakaar naa du metti moo tax maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ndaxte am naa ci ay mag am ci ay rak ñu déggal ma fonk ma respecté ma jox ma cër tamit moo tax affaire bi metti bi duñ bàyyi relation bi yow ak waa mouvement bi la waaye ki moom mouvement bi muy élage Hadj Pape Malick est-ce que euh, liggéey ak moom euh, maanaam yombalal na la liggéey bi parce que lu bëri ah Ousmane Dieye na ko lu bëri Serigne Talla mën na ko waaye am na loo xam ne forcément moom kilifa gi moom la ci moom lay mën a jaar est-ce que yombal na la seen relation pour jot beeg wàllu bu fekkee wàllu finance ak yu mel noonu. waaw euh, liggéey ak moom yomb na parce que moom nekk na nit koo xamante ne nii mouvement bi dafa sax ci biir xolam parce que yaakaar naa lépp lu ñuy def tamit donte ne suñ bopp moo tax mais moom tamit am na ci paax donc moom lépp lu ñu soxla muy fu ñu war a jug dem. muy moyen yu ñu soxla muy lépp lu mu mënti doon rek mu ngi siy jàppale bu baax a baax si côté jot beeg yëpp yëpp yëpp wax dëgg yàlla ñu ko ciy sant bu baax a baax di ko gërëm ndax côté boobu ñu si appuyé bu baax a baax wéetuñ daal. macha allah euh, madame la présidente tabarakallahu am na solo sama xarit nag la ñuy jox El Hadj Ousmane Dieye président euh, national. 100 pour cent El Hadji Papa Malick euh, Mbaye tabarakallahu mu ñëw ak ñun ci li nga xamante ni laataa ci programme bi dañuy ñëw ci diggante relation ak euh, sëriñ bi tabaarakallaahu bu ko defee bu ñu ci relation ak euh, sëriñ bi euh, muy El Hadj Pape Malick Mbaye tabaarakallaahu ñu ñëw ak moom ci programme bi ci wàllu organisation ak yu ni mel El Hadj ku ne xam na ne ku ni Ousmane Dieye xel dem ci Pape Malick ba sax ñu bëri Pape Malick Junior Dieye lañuy lay tuddee relation bi yàgg kilifa gi lu mu doon. loolu boo ma ci laajee dama ci sawar a tontu ndax euh, tabaarakallaahu comme ni nga ko waxee rek euh, bari na ñoo xam ni euh, sama digganteeg Pape Malick ump na leen waaye ocasion la pour ma leeral ci ndax Pape Malick bi ma koy xam c'était 2012 mu ñëw gàmmu alhaji Cheikh sàmb bu Mbour tabaarakallaahu ànd ak ah suñu baay Mor Niang ah ci ndigalu ah, tabaarakallaahu mag ñi ñu ñëwoon fa teew fa ah ca laa ko gisee xam ni kii daal am na lu yàlla def ci moom ma am cafeel ci moom nag tabaarakallaahu eh, mu nekk it nit koo xam ni ku ràññee la ku xàmmee la ndax nit mën na laa sopp te doo ko xam waaye moom soppeem yépp la xàmmee ah tabaarakallaahu ca la ñu jaare man ak moom ñu nekk ay xarit eh, lii nga xam ni jël nañ ma jiital ma ci eh, xëy na ci loxoom la jaare ndax moom fu ñu doon waxee rek def naan usmaan jambar ah, la Ousmane jambar la ndax xamna ni kuko jital dina liggey ah xeyna nak lolou la gison ci man waye man tiofel bima ma ci mom mo ëppoon peut-être motax yu ci bare bare bari bu ñewon rek nan doxalal ah mu nekk nak nit ku bax wa nekk nit ku bax nit ku neex a nit ku bëgg ay soppeem wa fu ne taxaw nañu fa tabaarakallahu dara sam papa bimu fi jógee euh ah, genn aduna mok alhaji talami ak 100 bi daf leen a délégué ni leen du ñu def dara lu dul dem Mbuur jaale ji Ousmane Dieye te bu toogoon woote sax xëy na mën naa doy wala mu yebal taala man naa doy waaye dafa ni Ousmane du xewle may toog waaye dafa bàyyi itam yëpp jugee Tiwaawan ànd ak délégation bu am solo ñëw ba Mbuur jaale ma ah loolu rek dafa rëy ak yeneen ak yeneen yoo xam ne séq nañ ko mu koy mu ma koy defal tabaarakallaahu seetaanu seetaanuma daal benn yoon waaw te nit ku baax la wax dëgg yàlla ku bëgg ay soppeem fajar ci moom du jeex ndax li ñu seq bari na waaye xam lépp wax lépp baaxul yàlla na yàlla barkeel. amiin incha allah ci barke ci yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam Ousmane euh, mag ñi ñooy wax ni fukki chauffeur buñ bokkee oto kenn jiite yow itam ñi nga jiite bëri nañ maanaam chauffeur dong ñoo fi ne ngay chauffeur bi ñu jox nga jiite. est-ce que yomb na jiite mbooloo mu toll nii macha allah yàlla na mbooloo mi gën a yokk plus de 1000 personnes nga bëgg leen jiite ak ku nekk ak sa jikko est-ce que waaw xaj pap euh, jiite mbooloo comme ni ma koy waxee rek yomb na yombul ci mbooloo mi ngay jiite ah, nga gis ca mbooloo ma ñoo xam ni euh, doy nañu waar doy waar goo xam ni loo def ñu ni baaxul waaye mbooloo mi ma jiite tabaarakallaahu yàlla dafa dogal dafa am ci ñoo xam ni dañ maa soppal seen bopp ba lu ma def ñu ni baax na ah jiite bi nag li tax mu xaw a yomb ci man gën a yomb ah tabaarakallaahu bokk na ci alxaaji taalib yi nga xam ni mën naa ni sax turu président rek lañ may woowee mais man dama jël lépp teg ko ci loxoom nga xam ni lu ñuy def moom moo nañu naan def leen lii lu ñuy wax moo naan ñu wax leen lii ñu def loolu réussite bu amee ginnaaw yàlla moom la ndax bari na loo xam ne nii nit ñaa ngi koy gis ci kanam bu ñu nee président ñu ni Ousmane Dieye bu ñu nee présidente ñu ni Soxna Absa mais la ca ginnaaw ñu bëri xamuñu ko muy taala wallahi alazim day sonn bay jël alalam di ci def day jël alalam di ci def te man xam naa ci dara ak yeneen ak yeneen yoo xam ni day sacrifier temps am waaw ku ne xam na ne amu jot kilifa la waaw kilifa la te képp kuy seetaan dégg li di nga ko xam kilifa gu mag la waaye day bàyyi liggéeyam yëpp bàyyi itam yëpp ni man leen rek moom ma ñor xadar Seydi Hadj Malick jëm kanam kon lu ngeen nekk maa nga ca waaw jiital ñu nag jiital ñu waaye lépp lu ñuy def ci ndigalam lañ koy defee loolu moo tax sonnuñu benn yoon bu fi nekkuloon mën nañ sonn waaye ci moom la ñuy xool ci moom ginnaawam lañuy ñuy topp mu nekk koo xam ni it ko xam jamono la tabaarakallaahu ah loolu rek moo waral eh, sonnuñu te ñu jiite tamit compliqué wuñu loolu la rek mais ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax a baax jiite mbooloo yomb na yombul waaye mbooloo mi jiite moom alhamdulilah. macha allah loolu am na solo président eh, ay kàddoom lañ doon taataan noonu ba tey ñu ngi fii ci ki eh, nga xamante ni. Euh, mooy ci plateau bu spécial bi nga xam ni ñu ngi koy def ci euh, site bu mag bi ci télé bu mag bi di Pape Malick Mbaye euh, TV ah tabarakallahu yéen ñi ñu bàyyi xel ñu ngi leen di ziyaarawaat lu bëri bari ñu toog fii nag ngir waxtaan ak 100 pour cent El Hadj ginnaaw xew-xew bu mag mag a mag bi ñu amal fi nga xamante ni mooy ci Tiwaawan bu ñu burdoo euh, euh, ba mu des euh, benn fan bisu noppalu bi ñu woon nit ñi ngir ñu bégalante ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo tax itam taala gadaga la ñuy jox micro bi sampaat ko beneen laaj muy taala organisation bi am na solo tabarakallahu macha allah mais nan la demee woon organisation organisation bi wax nañ la ko sànq rek gis nga organisation ci gàmmu Tiwaawan lu mu rëy rëy rek bu jaara yoon ba nga defee ne yow rek juum nga lépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la gis nga Seydi Hadji Malick bu demee ca nuunu ya ca bihi bihim ya maa ngi fay wax naan bihi zul mulki mulika man naa bihi lil naa fa naskura kulla diini mu ni ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa même ki doon wut nguur sax ci barke yonent bi la ko amee ci yonent yeeg aqtaab yeeg wallu yeeg lépp lu nit mas am ci cër ci àdduna rek ci barke yonent bi moo tax nga am ko kon kuy defar guddi yonent bi muy tànt wala leneen ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu réussir war ngaa xam ni barke yonent xajtaa la gis nañ ni yaa doon coordonné mbir yi tabaarkalla muy euh, bés bu mag boobu gis nañ ni jàll na ba tey jii euh, bilan boo ko doon tiiree lan lay doon. bilan. waaw bilan bi nag moom mënu si koo tiire parce que vraiment dañ doon jël rek def wax dëgg yàlla dañ doon jël rek def yàlla xam na ko ba léegi ñuy wax yow ni mënuñu laa wax la gaa am leen ci financé. wallahi ñun ñi ñëpp muy président muy présidente muy membre yi ne ci 100% bi yëpp kenn ku ci nekk li nga def ci sa ci ci ci programme yoo xamoo ko wallahi da doon jëli def rek kenn ku nekk sax koo xam ni yow président présidente bi mën na ci seere am na ay ñoo xam ni ay nitam lan yoo xam ni daf leen a poñe rek ngir bis bi réussir président noonu kenn keneen noonu am na suñu xarit bu toogoon fii léegi dafa Seydou Makol moom tamit lu nekk la ci daj ak ñeneen ak ñeneen mënuñoo lim mais kenn ku nekk ci membre 100 pour bi rek débloqué nga ay moyens yoo xam ne xamoo sax fan la jóge ci yow ngir ngir bis am réussite macha allah jërëjëf xaaj euh, Talla euh, Gadiaga macha allah kàddu yi am na solo ba tey ñu ngi ak présidente euh, soxna sa organiser ay jigéen yaakaar naa xaw naa nu mu tuddati surtout jigéen ak ñu baal ma dañuy xaw a bëgg di critiquer yu bëreek yu mel noonu nañ ma baal àq nag tabaarakallah est-ce que organisation bi jafe woon na torop torop ci côté xale yu jigéen yi ak yow. waaw organisation bi ci côté xale jigéen yi yaakaar naa jafewul woon. parce que ñun ñëpp ay soppe lañ te ñun ñëpp tamit ay taalibe mawdo lañ te yaakaar naa mawdo moom yar na yar na juróom bu baax a baax a baax parce que ñoom ñëpp ku ci nekk li ñoroon rek mooy mooy bés bi am réussite total te yaakaar naa ki bëgg defar kooku du yàq loolu moo tax mbir mi na torop torop torop ndax kenn ku ci ne mu ngi doon xaacu lépp rek ngir mbir mi jàkk moo tax mbir mi daal yomboon na bu baax a baax bu jeexal. allah waaw tabarakallahu alaaji pap comme ni nga ko waxee rek message bi may lancé dama koy lancé comme képp koo xam ni jeune nga te bokk ci tarixa bi ah tabarakallahu 100 euh, pour cent Pape Malick loo xam ni dañ ko fermé lu ouvert la képp koo xam ne nii bëgg nga liggéeyal xadara Seydi El Hadji Malick ñu ngi lay wow nga ñëw jàpp ci ndax ki ñu àndal laajuñu 100 francs au contraire moom mooy jël alalam di ñu jox pour ñuy def waa liggéeyal xadara bi moo ko ñor comme ni ko waajuram doon defee alxaj mbay doon de bu sëriñ baabu kes ay magam alxaj dut kenn sëriñ Cheikh Tidiane mbay ñoom ñëpp xalifa mbay tabarakallah waaw loolu rek laay lancé message boobu ñu xam ko te xam ni euh, àndandoo euh, doon benn moo ñu mën a jariñ waaw ndax àndandoo ci la lépp nekk يالا نين واقتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نين نين جاب تي بوم يالا كي دون بين تي بولين تاخاليكو تاخاليكو نك فوم ام مصيبه ام الجماعه الرحمه في الفرقه عذاب لول لا تبارك الله كون نيغي نيان يالا سونو اند بي يالا نكو يالا سام مو غنا دغير تي تبي صلى الله عليه وسلم نيغي جيغلو نيب الحاج باب جيرجف جيرجف الحاج عثمان كي امنا نيوي وو تي كوتي بوبو ñan lay doon ak message bi ngay lancé waaw macha allah xaaj ah xam nga jamono moo jamono moo xat man damay faral di wax nii chaque instant ñi may nekkal mooy man li ma gëm mooy liggéey waaw mooy nañu liggéeyal suñu bopp pour li ñu bëgg ñu mën koo am mais bu ñu ko wékkee ci kenn rek tardement day am parce que koo woo fekk fukk woo ko du sotti du sotti te te yite yi bëri na man li may lancé du ma ko lancé kenn pour ñaan dimbal ci li may lancé mooy ñun suñu 100 pour cent bi nañu liggéey fonk liggéey te wàññi programme yi gis nga ndaw liggéey rek moo koy may mais leneen du ko may te gis nga gis nga mouvement yi gis ñu am doole yëpp dañoo yar seen njaboot ci liggéey ba xëy yàlla def leen réussite parce que tey ñun ñi nga xam ne ñoo bokk ci 100% bu ñu liggéey ba yàlla may ñu lu ñu bëgg bu a débal ko benn 1 suñu bopp waaw ndax Seydi Hadji Malick nga xam ne mooy suñu référence liggéey na xamoon doonul woon sëriñ mosul gëm affaire sëriñ bañ nag daan wax naan Sénégal buy tas wala du seex ka seex moo koy tas sama doomu sëriñ la sama sëriñ kon kooku deful kenn taalibe waaw kër gi kenn du fi taalibe kër gi kër yàlla Sidi Hadji Malick waxoon donc nañu gën fonk suñu bopp te sant Sidi Hadji Malick ndax ku réer yaa réer mais xaaj Hadji Malick réeralul kenn moo tax sëriñ si wax ko ca ca ca ca ara ni ko sala selu siixat min safa i zabat jidin ila sayidi axlaaqi yowma tisaalihi waaw mawaahibu tati taaratan min ilaahi wa uxra min aqtaabi an silki haalihi mu ne Sidi Xaaji Malick mii ak càllalaam buñ koy xool ci wàllu askan moo gën a riis wurusu zabarjat muy koo xam ni bu la neexee nga di ko xool nga ni kii bu dee ci mayu yàlla la rek àgg na ca plafond ba bu fekk da ngay xool ci wàllu tarixa cheikh nga ni nga xool silsilaam xam ni kenn la muy silsila xam nga Sidi Xaaji Malick même bu du woon tarixa bi sax du ko tey doon li mu doon ndax ku xool li mu jotee gi tarixa bi nga xam ni jot na ko ci walu deret lu jiitu mu koy jot ci walu may yàlla ndax ku ne xam ne nijaay ni mu foore ci nit te islam ci nijaayam alfaahi mayru la joge door dem ci Mouhamadul Ghali door dem ci Cheikhul Omar dem ba ci Cheikh ahmed Tidiane Serif dem ci yoni dem ci yàlla directement ko sir islam bu rafet la am non la mel ci walu askan mel ko ci walu famille wa muy ko xamni aussi ñi ko don ñi ñi ñi don ñi don jëkkante ci course yëpp kenn xuttuwu ci pënd moom sir Hadji malik parce que kër go dem gisol gisol nagasul fa mais fi tiawan diinu ju set wecce fi nekk te lépp Seydi Hadji Malick la waaw wanuñu yàlla wanuñu wanuñu boppam dafa ñoo wane yàlla suñu borom alxaaji Rawxaan Ngom bu paal bi muy dégg Seydi xaaj Malick te gisu ko dafa doon waxum Seydi Hadji ku wax Seydi Hadji mun la ko ku wax ku ni moo mu ko yàlla la mais bu ñëwee ba Seydi Hadji Malick ba def tarbiyaam bay dem da koo jox loxo ni ko nga baal ma àq moo li dégg te ma la damaa def woon yàlla nga waaye ba nga jàngal ma yow sax soo yàlla nga dama naan da ngaa def kooku xam nga Seydi Hadji ma ko boo xamee daf koo yar noonu la ñu njabootam yare nag Pape Malick yar nu ci loolu moo tax liggéey rek moo am solo yal na nu yàlla sàmm te xiir nu ci ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. macha allah alaaj taala loolu am na solo laataa ñuy def nag turu table bi dañuy jox soxna madame la présidente mu daal di moom tamit gis na président ak président d'honneur joxe nañ seen i kàddu li nga xamante ni mooy ñaax. ak ñi ñi nga xamante ni mooy euh, message yi nga xam ne lancé nañ ko yow yaa jiite soxna yi ban message ngay lancé ci soxna yi nga xam ne ñoo jàpp ba pare waaye soxna yi nga xam ne dañoo euh, bëgg jàpp te gisuñu yoon bi ak ñi xam ne jàpp ñu nga bëgg ñëw jàpp ban message lay doon. message bi may lancé soxna yi nga xamante ni jàpp nañ wala ñu ngi jàppantu ak ñi nga xamante ne ni jàppaguñ mooy ñu ñëw te gën a jàpp. te xam ne lépp lépp yenent bi la ndaxte jamono juñ toll nii yaakaar naa jeunes yëpp am nañ diine kon nag il faut soxna yëpp ñëw ñu jàpp ànd liggéey te xam ne fii moom yaakaar naa dara lu fi yàqalaate amul fii soo ñëwee ci lu baax rek lañ lay xiir liggéeyal fonkal sa liggéey fonkal say waajur te yaakaar naa képp ku lay ñaax si loolu rek kooku mooy sa mbokk kon nag maa ngi woo sama mbokk soxna yëpp ñu ñëw te xam ne lépp lépp yenent bi la noonu soxna Absa la président mbokk yi nag fi ñuy bëgg a yëkkatee jotaay bi agsi na li tubaab naan l'émission tire à sa fin tabaarakallahu moo tax dañuy jox rek def tour macha allah euh, jox Serigne Talla euh, président d'honneur Hadj Ousmane ji président bu euh, ci mouvement Sopp 100 pour 100 Sopp Alhaji Pape Malick Mbaye ak madame la présidente dañuy jox Serigne Talla rek mu daal di tàggatoo wax kàddoom yi mujj ci émission bi. waaw macha allah ñu ngi nuyu di gërëm ñëpp tabaarakallaahu waaye daal cant yeeg ngërëm yi ñun dañ ci jiital 100 pour cent Pape Malick ndax nag gis nga li muy metti métti kenn fekkunu ci waaw ñun ci fekk bariwul de waaw lépp ñoo ko defal suñu bopp kon dañuy delloo cant yi waa 100 pour cent xaalis Pape Malick Mbaye Seydou Makor ñu ngi koy nuyu di ko gërëm moom tamit xale la mee ko jàpp la tabaarakallaahu bu demee ba ba ba gàmm gi jaal mu neex nu ja nu sañ a wala Pape Malick di way nuy jaayu wax dëgg yàlla taxawaayu 100 pour bi la te nag jaayu ci ci tàgg yonente bi ayut ndax moo doo ko wax wa madaxul Moustapha fawzun wa unmun fa ma xarajun alayya min alxanini nee na koo xam ne tàgg ko ay xéewal ak ngañaay rek la kontaan bay manifesté wu du aay kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni kontaan nañ bu baax a baax a baax yàlla na yàlla kontaan ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi noonu sallallahu alayhi wa sallam mu ngi sant waa 100 pour cent bi yëpp tabaarkallahu rawatina nag eh, sama xarit sama waale bi di alaaji Seydou Makalu macha allah moom daf may sànni xeer rek eh, tabaarakallah kon nag eh, madame la présidente dañ lay jox yow itam nga daal di tàggatoo tabaarakallah ci li nga xamante ni mooy plateau spécial bi nga xam ni ñu ngi ko doon def ànd ci ak yéen sa kàddu gu mujj ci li nga xamante ni mooy émission bi. waaw may sant ñëpp rek di gërëm ñëpp. waaye di sant bu baax a baax mouvement 100% Pape Sy Malick Mbaye parce que ay jàmbaar ñoo fa nekk ñu seen bopp ñoo fa nekk waaye nag loolu suñ ko mënee rek dafa am ñu ñu épaulé ku ci mel ni Hadj Talla Gadiaga moom suñu kilifa la suñu mag la wante suñu xarit la lu nekk lañ koy teg lu nekk lañ koy wax mais fu mu toll rek mu ngi fexee pour ñu ñuy tegu ci kaw yoon bi man dama koy wax chaque jour ko bu ma geesoo gis rek sama xel day daal ndax fu ma toll yaa ngi may épaulé te yaa ngi may ñemeloo te dañu nekk ay ndaw yàlla boole ñu ak moom wax dëgg yàlla mu wàccee boppam bu maase ak ñun su loolu weesoo ñu ngi gërëm bu baax a baax suñu pap suñu xarit Hadj Pape Sy Malick Mbaye parce que mën nañ ne moo waral lépp daal mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jéggalu baax a baax. ayca mi ngi noonu madame la présidente soxna Absa présidente 100 cent El Hadj Pape Malick Mbaye euh, xam naa nag. Euh, euh, ñu ngi ci studio bi ba tey ak ki nga xamante ni mooy Serigne Pape Gueye tabaarakallaahu dinañ ko dinañ leen ko digtal léegi mu tàggal ñu Seydina Muhammad ñu tëjee ko jotaay bi ndax tàgg yonent bi lañ ko tëjee woon kon nag soxna ab sax xam naa dañ lay yeewi rek nga dem ci eh, mbir yi waaye laataa loolu dañuy jox Serigne Ousmane Dieye moom itam mu tàggatoo ci li nga xam ne mooy émission bi. waaw jërëjëf Alhaji Pape yàlla na yàlla nangu ah, wax dëgg yàlla kontaan nañ trop ci émission bi ak waa Pape Malick Mbaye TV di sant seen techniciens yi bu baax a baax sant tamit caméraman yi tabaarakallaahu ak yow mi doon présenté émission bi ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ndax euh, dagg ngeen seen yitte yëpp ngir ah wane li 100 pour cent bi def xëy na bu ngeen ko deful woon peut-être mën naa bañ a feeñ waaye ginnaaw yàlla bu feeñee waa Pape Malick Mbaye TV ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm tabaarakallaahu yàlla na yàlla fay leen di kontaan nag ci ñëpp di sant ñëpp comme ni ko Talla waxee 100 pour cent Pape Malick ay jàmbaar lañ seen taxawaay rek moo waral bis bi réussir tabaarakallaahu yàlla na yàlla mootali yëpp ci barke yonent bi sallallaahu alayhi wa wasalaamaaleykum wa rahmatullah mu ngi noonu alaaji Ousmane Dieye kontaan nañu ci yow kàddu yi teey na tedd na waaye itam am na solo waaye nag euh, laataa ñuy ñëw di tàggatoo ak mbokk internet yi ak ñi bàyyi xel ci Pape Malick mbay TV ah ni ma la waxoon léegi rek euh, alaaji Pape Matar Ndiaye moo toogoon fii ubbeeku ak tagg rasulullahi alayhi salaatu wasalaam euh, macha allah dañuy jox nag rakam soppeem xaritam di alaji Papa gi moom itam mu tagal ñu rasulullahi ah ñu daari di soog tagato ñëw tàggatoo ak yéen dox e, leen dig leen dajé ba benen yoon inshallah kon alaji Papa gi yaangi non mbok internet yaangi non di la setan à travers le monde micro baangi ni nebir fa inna din rasulullahi fihi lana mamadu halul masakili dunyaha wa xuraha كانت نجائب تدري بسرعتها يا الله سير السوارح أدناها وأقصاها هذه ببكرتها هذه بحرتها ممد هذه بحمرتها هذه بوسطاها هذه بظلمتها إن يشكرون لها أكرم بظلمتها يا الله أكرم بسكناها والصوم ذكر للأيام القبور لهم وفي القبور لهم أهل بظلفاها والحج سورة يوم الدين أو إن له في حجه آية جلت بمعناها وجعل زكاتك مكروها من مصاهمة إن الزكاة لأولاها وكاها وفي نجائم الأخلاق تنظمة وفي الصيام لنسل المرء أعلاها وقبل ذلك سر من شهادته إن الشهادة إمضاء لجناها الله أكبر والإسلام ملته ومصطفى من جميع الخلق أتقاها يا لينجن سنگ بچ مدينة وينا لا يا ممدو بسم الله بسم الله ما my friend jëme ko ci mamadooy naa laaya walla makka la juddoo foofu la yarooy naa laaya Sapu sapa manik cat Yan jam kana Mamado Niyisen terzi dabi Haji talagai vegenana Mamado cent pour bi am na ay section foo dem fekk nga leen fa Mamadou waaye tam am na mouvement Pa Malick Ousmane Dieye mooy président ba Mamadou bari naa la ndeysaan xaaj Papa Gueye macha allah yaakaar naa xool yëpp tooy na xool yëpp féex na li duuf ci nag bi nag daa xajul ci cin li mag ma ni ma doom ma ni ko mu ni ma ankay boo dagatee eh, eh, eh, nag wi mu xaj ci cin li ni ko bàyyi mu ni ma labbayka ma ni ko jot bu ñu daggatee nag wi moo fi amul moo tax itam fi lañ koo dagg ba beneen yoon di leen wax ni ñu ngi ne woon fii nga xamante ni moo ci Tiwaawan dëkku leer bi dëkku Cheikh Seydi Hadji Malick si bi ñu màggal si woon guddi juddi rasulullahi nee naa la us alaaji Ousmane Dieye barki démb nga ni ma labbayka man la boo nee ceebu jën xel yëpp day dem ci sunu maam Penda Mbay waaye boo nee gàmmu xel yëpp fii la jëm si Tiwaawan dëkku Cheikh Seydi Hadji Malick si loolee nag moo sababoon mouvement bu mag bi mouvement bi nga xamante ni liggéeyal xadara maam Cheikh Seydi Hadji Malick Sy ñu fàttali leen moo ko tax a jóg waaye nag jaare ko nag ci ki nga xamante ni nag mooy seen soppe seen xarit seen baay seen seen nijaay di lépp ci ñoom ci ñoom muy alhaaji Pape Malick mbay di mouvement 100 pour cent alhaaji Pape Malick Mbaye woote woon nag euh, guddi gu mag guddi mu soppe alhaaji Pape Malick mbay fii ci Tiwaawan dikk nañu ak euh, suñu invité yu baax yi yile alaaji Taala Gajaga euh, mu baax mi le alaaji Ousmane Dieye sama cheikhandoo bi waaye itam euh, soxna si nga xamante ni mooy présidente bi waaye andoon nañ ak alaaji Pam Matar njaay mu daal di ñuy ubbil jotaay bi ci tagg rasulullahi ba muy jeex ànd nañ ak rakam xaritam soppeem alaaji Papa Gueye mu tëjul ñu jotaay bi ci li nga xamante ni mooy tagg rasulullahi alayhi salaatu wasalaam di ñaan nag suñu cofeel ci moom yal yàlla yokk waxoon naa la alaaji Ousmane Dieye ni la Seydouna Mohamed VIP bu mag boobu nga xam ne du jeex du jeexal te du xewi te soxlawul promotion soppey maam Cheikh Seydi Hadji Malick baa Cheikh Seydi Hadji Malick baa ngi noonu di Seydouna Mohamed alayhi salaatu wasalaam di sant nag bu baax baax suñu caméraman yu baax yile ak suñu preneur de son yi ñoom alaaji Babacar Sarr ak ñi mu àndal di leen wax ni nag ki doon àddu ngeen di teewlu mooy seen xarit di xaritu képp ku bëgg lu baax di seen soppe di soppe képp ku bëgg lu baax di eh, eh, papa Samb bu Seydouna Mouhamed lu fi jóg ngeen xam ni mbaaxu yàlla subhanahu wa taala la lu fi dëng ngeen xam ni ñàkk mën a wax ci mbooloo la waaye itam eh, lu fi dëng ngeen xam ni ñàkk mën a wax la ñu ngi koy jéggalu oh, bu baax a baax di leen ñaanal jàmm di sàkku ngeen ñaanal ñu ko yal yàlla defal ñu ko di leen ñaanal jàmm ngeen di am jàmm ñi am jàmm ba déwén ak jàmm incha allah